fidèles téléspectateurs de Sénégal 7 bonsoir et bienvenue ci li nga xamante ni mooy seen émission bi di les échos du net sur Sénégal 7 nga xamante ni ajuma bu jot dinañ essayer def suñu kemt lay kattan indil leen actualité yi nga xamante ni moo gënoon a faar gënoon a ci les réseaux sociaux ba ngeen am ci li nga xamante ni moom mooy la bon version ba tax na tey ci kattanu suñu borom dinañ yaatal li nga xamante ni moom mooy xibaar yi nga xamante ni moom la ñu xëy rek mu daan ñuy euh, dikkee fale nga xamante ni moom mooy euh, la Sen TV euh, Sénéra tëj na fa nga xamante ni moom mooy Sen TV ak JIK FM li ko waral du lenn loo xamante xamante ni rek tere gu nu tere woon kii di ay dara ah, ngir mu daal di doxal loolee nag la nga xamante ni da caa aju comme ay information lan moo ci taxawaayu Bougane gi Dany ci kanam dinañ ko xam dinañ ko leeral ci yaatal gi leneen lu am solo loo xamante ni it war nañ ko wax Bass Diakhaté mi ñu ne woon daa génn àdduna démb nag en exclusivité fii ah, ci Sénégal set amoon nañu ay leeral yi nga xamante ni leeral na bu baax a baax ci boobee xibaar loo gën a am solo it loo xamante ni duñ ko bañ a bàyyi xel bokk na ci xamante ni nemmeeku nañ ko fële ca diwaanu Mbuur te ay xale yu ndaw diggante 18 ba 28 ans ñoom rek ñoo doon filmer seen bopp mbir ma fa mu jëm ak yan taxawaay la ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor rek lépp loo xamante ni mooy wàllum yoon ci kàttanu yàlla di ngeen ci xam dara ñu daal di koy jeexalee rek meurtre ba nga xamante ni am na fële ci UGB nga xamante ni kuy wuyoo ci turu Seynabou Ka euh, nekkoon euh, femme enceinte wan noon lor ba toll woon ci ñeenti euh, mujj faat nag ci kàttanu yàlla lépp di ngeen ko am en exclusivité fii ci Sénégal 7 nii rek lay demee tout le temps ñu daal di koy yaatal ba ngeen am ci li nga xamante ni moom mooy la bonne version avec l'équipe bu am solo bi nga xamante ni nag ñoom laa àndal dañuy dem bàkk bi daanu ñu gën ko yaatal à tout à l'heure def de retour sur Sénégal 7 ñu daal di yaatal xibaaru ayubés yi ñu génn nag ci li nga xamante ni junj nañ leen ko sànq ci ndox ndoxteel li bokk euh, fële ca Sen TV nga xamante ni jamono ji ñu ngi commencé dund nag ay jafe-jafe te leen waralu ko lu dul tere ga nga xamante ni tere woon nañ ko Ahmed dara ngir mu daal di def revue de presse parce que ñii di waa senera euh, njiit la di Babacar Diagne euh, mi ngi xamle ne li nga xamante ni moom mooy revue des titres yooyu dafa am benn manquement ay manquement sax nag la wax ndax mi ngi xamle ne revue des titres bu Ahmed Aïdara non seulement dafa manqué euh, objectivité dafa manqué bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy neutralité d'éthique ak li nga xamante ni aussi moom mooy équilibre ba tax na mu daan ne woon kii di Ahmed Aïdara na dakkal di def li nga xamante ni moom mooy revue des titres fële ci Zik FM wala sax muy fële ca Sen TV loolee nag mu mel ne lu ñu respecté wul la woon tax na ñu daal di euh, dagg signalu Sen TV ak fa nga xamante ni aussi moom mooy xamante ni moom la ci Bougane Gueye euh, Dany daal di taxawee nekk lu neex lool ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Aidara ndax waxul lenn lu dul kii di Babacar Diagne di euh, euh, njiital sénéral li mu def tegu ko fenn fu dul ci lu illégal donc loolu bi mu ko waxee it ay dara moom yëkkati na ay kaddu jëmee ci li nga xamante ni aussi moom mooy tere gi ñu ko tere ngir mu daal di doxal wëyal ay fonction même bu fekkee ne nag moom mooy maire bu Guédiawaye loolu bi mu ko xamlee nit ñi di fàtte te moom du ko fàtte benn yoon bokk na ci lii di euh, poste maire bi nga xamante ni yàlla dogal na mu daal di koy jël luy jàll la te li nga xamante ni aussi moom mooy euh, liggéey bi muy liggéey fële ci Zik FM ak fële ci Sen TV euh, nekkul loo xamante ni daf koy defantool dafa nekk lu mu bëgg waaye aussi nekk loo xamante ni loolu mooy woy ndax nekk maire du looy du li nga xamante ni moom mooy continuer ba tey mu ngi gën a sant ak rafetlu taxawaay ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany te nee na moom lenn du ko tax a lenn du ko tax a daw mi ngi doon fàttali ne salaire am sax li mu doon xamle te waxoon ko laataa muy falu mooy su demee ba falu du ko du tax mu daal di ndakkal li nga xamante ni moom mooy continuer di def ay émission fële FM ak fële fa nga xamante ni moom mooy la Sen TV mi ngi doon xamle ba tey ca ginnaaw euh, yaatal ak euh, xibaar yi nga xamante ni mu ngi ko doon joxe juste après bi nga xamante ni rek tere nañ ko mbir moomee mi nga xam le ne moom li mu waxoon laataa falu bokk na ci bu fayee ko salaire am da koy jox ñi nga xamante ni dañ yelloo te ñooñu xàmmee nañ seen bopp bu baax a baax kon nag ci gàttal li nga xamante ni ñun mën nañ koo tënk daal di koy euh, téye jamono ji te bu fekkee ne dañ koo dañ koo jëlee rek ci ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Aïdara euh, li nga xamante ni moom fas yéene na ko mooy continuer di wëyal ay fonction fële ci Sen TV 72 heures nag la ñu euh, maanaam la ñu teg ay daanu ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa D-Média 72 heures yoo xamante ni duñu ñu am signal donc fu fu mbir mi jëm ak ban taxawaay la ci ñi nga xamante ni ñoom ñu employé am lu mu ci manti doon incha allah avec les prochaines éditions yi nga xamante ni incha allah Sénégal set dina ko amal dinañ ko topp ba mu leer nañ ba kenn ku nekk xam mbir mi fu mu féete leneen lu am solo loo xamante ni du ñàkkit ñu waxtaane ko bokk ci euh, génn ko àdduna gi nga xamante ni annoncé woon nañ ko ne kii di bas Diakhaté da koo génn àdduna euh, biñ ko waxee it euh, ñu bëri commencé triste parce que ku yàgg bégal sénégalais yi la waa Sénégal 7 dem nañ ba am ci lu ñu leer naññ parce que ñu ngi ñuy xamal ne Bass Diakhaté ci boppam moo xam le ne moom mu ngi dund te ñu koy ñaanal nag suñu boroom euh, def rek muy gën di dund ci barki Nabil Moustapha fii nag Sénégal dañoo am euh, ay euh, genre wax yoo xamante ni bu fekkee ne nit ki dañ ne dañ koo tàggate mujjul génn àdduna liñ koy tere rek mooy mu bañ a lekk saraxu dëj maanaam nàqu dëj waratu ko lekk loolu bokk ci ay répliques yoo xamante ne internet indi nañ ko nga xamante ni moo warloo ak ñun non seulement ñu leen di informer dañ leen di bëgg a joxaale yenn yi nga xamante ni bokk na ci gis-gisu askan wi bu ko defee kenn ku ci nekk mën koo jàppee noonu lu amaat solo nag ba tey bokk na ci euh, ñu bari ñu ngi jël ay tuuma wala ñu ngi reproché ñi nga xamante ni ñoom ñooy bindkat yi di taskatu xibaar yi ci bala noo def dara na leen di leer ba noppi parce que nag rey bàyyu jàmbur wala nijaayu jàmbur wala magu jàmbur nekkut lu neex ci xol lu mu ci mënti doon nañuy gëstuwaat information yi bokk na ci li nga xamante ni moom la internet yi di réclamer ñu daal di ñëwaat ci lu am solo loo xamante ni mu ngi amoon euh, ci diggante ki nga xamante ni moom mooy le king euh, des promoteurs muy euh, Gaston Mbengue mi nga xamante ni moo amaloon combat bu am solo bee nga xamante ni moo doon dox ci diggante Eumeu seen ak kii di Bombardier macha allah ba 52 de Mbour nag mujj ci am défaite kii di Eumeu seen daal di gagné mu nekkoon loo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp kontaanoon nañ mais dafa amoon ay retombées yu amoon juste après le njëkk a ñaawlu mooy ñàkk a taxaw bi nga xamante ni waa Mbour taxawuñ ko ki nga xamante ni moom mooy Bombardier parce que nag moom fu mu dem Bombardier euh, fu mu dem mbuur lay siggil fu mu dem mbuur lay taxawal bañ na ko ba benn slogan la am muy guddi guddi Mbour donc loolu it nekk na loo xamante ni mu ngi koy ñaawlu bu baax nee na mi ngi euh, walaaj politiciens yi nga xamante ni ñoo nekk fële ca diwaanu mbuur donc ñoom lan mooy seen taxawaay ci seen doom ji di Bombardier ba tax na indiwuñu benn yoon loo xamante ni dina ko gën encouragé te sax du moom lu mu wax mais internet yi ñu ngi laaj est-ce que du loolu sax moo tax mu mujj découragé ba ñu daan ko ndaxte moom mii di boo bombardier bi ñu ko daanee ba noppi da doon laaj lu xew bokk yi peut-être ci li nga xamante ni moom mooy émotion yi nga xam ne juste après défaite bu la dalee doo xamante il faut féete donc internet yi nag dañ cee sukkandiku jàpp ne est-ce que du ñàkk taxaw bi moo tax mu daal di euh, daanu waaye nag ñeneen ñi bu ñu xalaatee noonu ñeneen ñi dañoo jàppee ne ki nga xamante ni moom la ko sekkaloon di Eumeu Sène macha allah tay ci nga moom yàlla dafa def mu mën a bëre te it jour boobu nekkoon bësam ndax macha allah moom dafa prouver lu nekk ci làmbale donc euh, bokk ci ay ñaari version yoo xamante ni euh, ñii bu ñu waxee ni ñeneen ñi dañuy waxee autrement leneen lu am solo li nga xamante ni moom Gaston Mbengue xamle na ko te di ko leeral te it mu nekk benn déclaration boo xamante ni bi mu génnee ci gémmiñu boppam ñu bëri sax euh, mujj nañu tiit parce que mi nga xam ne ni kii di Bécaye mbay moom bu mu ñëwati ci làmbam parce que non seulement bu fekkee ne moom signé wul signé waa fanaanul te it moom dañ ko cee boole rek waaye moom du moom kase moom moo yor làmb te yorut télévision euh, moom dañ ko yóbbaale rek voilà amul lenn loo xamante ne war na ko yëkkati ci ay kàddu di ko jëmee ci boppam lijjanti yëfi boppam moom euh, Gaston Mbengue ba tey moom mooy xamle ndax mi ngi xamle ne euh, moom mii di Bécaye mbay li waral sax tontu bi yëpp ñu fàttali ko rek bokk na ci moom mii di Bécaye mbay li mu doon ñaawlu rek mooy ñu signé contrat jàppale mbër yi bu ñu amee open press ñu dem bu ñu amee conférence de presse ñu dem Euh, te euh, bu ñu gañee ba pare euh, ñu tere leen ngir ñu daal di teg combat bi ci jour bi ci guddi gi donc loolu da ko doon ñaawlu loolu bi mu amee it moom mi di Gaston Mbengue mi ngi xamle ne moom mi Bécaye Mbaye na ko maytu ndaxte moom ci boppam nekkul koo xamante ni dafay jël làmmiñam rek daal di dugal ci poosam nit ku baax la dégguñu ko ci ay lobbying dégguñu ko ci ay góor jigéen dégguñu ko ci lenn liggéey il s'est fait tout donc loolu bokk na ci li tax mu daal di frustré wu ba daal di euh, euh, yëkkati ay kàddu jëmee ci ki nga xamante ni moom mooy Bécaye mbay ba tey nag dégguñu ki nga xamante ni moom mooy Bécaye Mbaye daal di wax waaye nag li ñu jot a for rek ci sunu naataango yi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi te mu wax ko en exclusivité ci benn chaîne boo xamante ni euh, day doxal làmb mi ngi xamle ne rek kii di bekkaay mbay moom bu ko neexee sax bu mu ñëwati te moom nee na bëggatul mu ñëwati ci li nga xamante ni moom mooy ay combat am nee na moom ku ko fase it di nga ko baara saudi moom mii di Gaston Mbengue mooy wax ba tey nekkit lu am solo bi ñu ko laajee aussi ci PPV yi nga xamante ni euh, jamono ji moom la ñu commencé doxal li mu xam ne du lenn lu dul euh, gis na ci boppam bu baax a baax ndax gagné nañ plus de cent millions ci PPV yi donte amoon na ay piratage waaye euh, mujj gi nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa banque ñoom ñoo doon répertorier doon ko wax li nga xamante ni moom la ñu am en exact exactement du moins voilà mu nekkoon loo xamante ni Euh, lu mu yaataloon la doon ko xamle bu baax a baax ci juste après combat bi mi ngi xamle aussi ne euh, dañ ko exploité ba mu sonn voilà donc dafa jot nag euh, li nga xamante ni moom lañ koy reproché que ne benn tele tegul combat bi ci guddi gi moom chaîne am ci boppam la ko bëggoon a teg en exclusivité ba pare parce que moom day liggéey voilà fowul tey kenn mayu ko télévision mayul kenn te comme contenu la yore bala cee kenn jariñu moom mu jariñu ci ba noppi bokk kii di Gaston Mbengue xamle na ko mu mel ne jamono ji moom tamit dafa gën a ubbiwaat yi gëtam xam bu baax a baax nan la milieu bi di di fonctionner surtout euh, lamb ak li nga xamante ni moom mooy média mu nekkit euh, lu am am solo euh, loo xamante ni lu ñu fas yéene woon a leeral la ngir kenn ku nekk bàyyi ci xel ñu daal di ñëw nag ci drame ak fait divers yi nga xamante ni waxoon nañ leen ko sànq ne dinañ ko yaatal bi ci njëkk bokk na ci kii di wuyoo ci turu Seynabou Ka Diallo mi nga xamante xamante ni étudiante la woon moom mii nag ah, benn petit moom moo ko mujj <clears throat> faat euh, du li ko tax nag euh, du lenn lu dul euh, ginnaaw bi mu ko xamalee ne dama wann lor maanaam dama ëmb moom d'accordu ci woon benn yoon li mu doon bëgg rek moom mooy mu daal di koy mu avorté immédiatement waaye xale bi moom jëlul woon benn yoon décision daal di avorté ndaxte waxagu ko woon sax ay way juram waaye nag dafa mel ne it ki nga xamante ni moom mooy petit mi wam bi yàlla dafa dogal mu daal di jël décision nag ndax nee mi nga xam le ne jëlul woon intention rey ko waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy enquêteurs yi ak bi ñu defee autopsie ñi nga xam le ne noo seulement xale bi dafa euh, mujj euh, génn àdduna par asphyxie maanaam dañ ko fatt ba mujj mu génn àdduna te en même temps ci yaramam dafa amoon ay gaañu gaañu yoo xamante ni mu ngi ci woon mu mel ne rek euh, ak mu avorté boobu nga xamante ni bëggoon na mu avorté mu gën a sabab euh, ngir mu daal di faat bakkanam lu mu doon nëbb la wala amul woon situation wala ku nanguwul woon a prendre ses responsabilités lu mu ci mënti doon jamono ji dossier baa ngi ci loxo yoon te euh, nañ ci def li nga xamante ni moo war leneen lu ci ruus rek te jëmee ci xibaar incha allah dinañ ko yaatal ñu daal di koy mujjee nag ah, ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw ya nga xamante ni ñoo nekk fële ci diwaanu Mbuur jamono ji eh, parent ya fa yeewoo ku yor doom ju góor mbaa nga yor doom bu jigéen ñoom ñëpp ñu ngi commencé tiit ak nekk ci ay problème yu pata pata pata parce que ah, ñu ngi xam le ne eh, diggante dix-huit ans ba vingt et ans ay xale yoo xamante ni ca Mbuur la ñu nekk nekk ay élèves en même temps ñoo doon def ay ébats sexuels yoo xamante ni ñoom ci seen biir ñoom ñoo doon filmer seen bopp ko wund ak lan lañ ci bëgg ak vidéo yooyu fu mu jëm euh, nga xamante ni c'est des vidéos sous forme de pornographique donc euh, loolu tax na ñu daal di teg loxo ñooñee nga xamante ni ñoom ñooy xale ya waaye jamono ji lu ñu dégg la enquêteurs yi daal ci def ay gëstu waaye kenn ku nekk koo xamante ni rek parent nga te nga nekk fële ca diwaanu Mbuur tiit nga ndax yaa ngi yaakaar sa doom bokk ci bu dul bu jigéen mbaam muy bu góor ba tax na ñoom ñëpp seen i fit yéeg na ca kaw comme li may wax rek kenn moomu leen te am nañu seen point de vue boo xamante ni saa su ne bu ñu amee xibaar ñoom it dinañ ko defee seen analyse selon ni mu ni ñu ko sentiree ñu nga xam le ne xale yi non seulement position yi nga xamante ni ñu ngi ko doon jàngale ci vidéo yooyee même bu fekkee ne nee nañ ay jeunes lañ diggante 18 ans la ñu am ba 21 ans bari na sax ay mag yoo xamante ne xamuñu yooyu position donc mu nekk loo xamante ni euh, euh, actuellement ñi nga xamante ni non seulement ñooy yeewoo diwaanu Mbuur ak jaaxle mu ngi leen di dal parce que ñu ngi xam le ne loolu bu demee ba nekkaat sax euh, beneen euh, information bu gën a euh, leer nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw ya nga xamante ni ñoo def loolu est-ce que bu mujjigee du pervertir nga xamante ni ñoom ñooy xale ya donc ba tax na ñu bari sax ñuy xam le ne kenn ku nekk boo yoree sa doom demal nga teel a gëstu xool ba xam moom bokkul ca mbir ya parce que xale boo xamante ni xamul dara bokkut ak xale bu xam ba noppi alors am chef de téléspectateur téléspectateurs fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi nga xamante ni euh, waxoon nañ leen dinañ leen ko yaatal ci seen émission bi di les échos du net nga xamante ni du xew fenn fudul Sénégal 7 ajuma bu jot ñu def sunu kemt lay sunu kemt lay kàttan ba indil leen li nga xamante ni moom mooy xibaar yi gën a fës ba ngeen am ci li nga xamante ni moom mooy la bonne version je remercie macha allah ki nga xamante ni moom mooy ba Tuuti ak ki nga xamante ni moom mooy Bijou ci réalisation bi ñu ngi kontaan bu baax di si la portez-vous bien et passez une excellente fin de soirée yàlla ñu suñu borom defal jàmm yàgg yokk tekk Barke Nabil Moustapha merci beaucoup et bonne soirée